xol man nan teelaa du ma fen ñii di ñuy dëgg si ñoom bu ñu sañoon nga yor pot di yelwaan ñu ngi koy gërëm waxtaan bi am na solo te dëgg rek moo fi génn loolu rek euh, moo ñu fi indi woon parce que li ñu fi indi mooy dafa am loo xam ne dañ ko bëggoon xam ci làmb ji ci biir làmb ji avant combat père de wax na ñun ñun ñun mag ñi yor écrit yi nekkoon ay bëri bu su benn supporter bokk bu su benn ku yor xaalis bokk ñun ñu daan mbëkkante démb ni Pikine nekk benn bopp nañu toog waxante dëgg. pour wax xale yi dëgg tam. non waxante dëgg laa wax pour téye ko ba noppi soog a wow xale yi. man sa combat ku ma gis damay wax ak Eumeu sa combat ku ma gis gisaal leen combat yëpp wax ak kenn mënu maa téye. même bu même bu ma déggul yàlla dégg na ma te yàlla xam na xol yi tant que tàppoo ñu xol yi nag boole xol yàlla du ñëw yàlla bind na ko ci bible bind na ko ci alxuraan bu xol yi àndul du ma ñëw Pikine lu ñu préparé noo jóganoo kenn attanu leen mais saytaane yow borom xaalis saytaane yow xam ne ba ngay def fekk ñu ko ñëw seen xaalis di dugg ci diggante booy di wax entraîneur yi yorul dërëm boo ñëwee jox ko cent mille suba nga jox ko deux cent mille boo ko loo ko wax mu gëm ko du la wax dëgg dëgg nag xoolal bu fekkee ne lii du dëgg boo ñaa yàlla bu mu daane di mbër man bu ma génnee yàlla na ma oto faat li ñuy nëbb man maa koy wax man déggul xoole ànd ñu pour cent bi du dëgg ëmmal seen ay mbiram teg ko ci yoon Jules Baldé ñi nii munoo xuloog ñëpp di am dëgg saa su nekk nan nee wax dëgg waay yàlla fi nekk waay Amar Sène li tax ñi mu sikki xool ma ñoo ne open presse kii man jéem a nuyu parce que booy boobu Pape Ngom xolu baay bi la mais fii kenn moo fi wàlliwu bay gént kan moo fi wàlliwu kan moo fi xul bu samaan ah mun nga fay nekk mbër entraîneur ñun dem équipe nationale bu fay nekk xul bu samaan si diggante bi ah waaye te munoo munoo wàcce kaamil waaye yow waaye nañ ñu dimbali waaye yow. ay gën naa lii di duul looy gënt. per baax na waaye yow yow ñu lay gëntal ngay gënt waaye yow. per bi day gënt de ñoo gënt sax yow nga gëntal sa bopp. waaye gënt la gënt gënt ak gis bokkul sëriñ day tëru kurusam toog. boo ne Serigne Touba ñu ne daaw daaw nelaw nga ne Alaaji Maalik mu ne daaw lekk yàpp nga ne mu andal géej gi nga ne Baye Niass mu ñëw dugg Afrique yëpp dugal dugal fépp monde bi yëpp nga ne Cheikh na saxsaas bu mu ñëw àll dem ci biir àll ba ca gaynde mu teg fa tàntam nga indi Sidy Lamine Kunta bu Kunta ngay muy toog njaasaan teg jëm si kaw ngay ji ngay jëw teewal di wax si moom mu ñëw Cheikh Amadou Sow ana bàmmeelam waaye ñoo ñooy wàlliw mais yow bëree ah di tëdd jigéen ah, saa su nekk di xool ay fer di wax wàlliwu laa waaye dañuy asalaamaaleykum wa rahmatullah boo ko gisee doo xool sañcam sëñ Saliou xamul sama dor bu ñuul ak bu weex sëñ Soye bu xamul xamul xamul oto ah sëñ bu benn yoon la ma sa génn gis góor ak jigéen taxaw mu ne ndax ay jëkkër ak jabar lañu ñu ne ko dee mu ne mu ne mu ne gor leen garab yëpp dootuma génnati waaye nit yi yàllaa ngi noonu mais ñëw duul dégg benn waaye mu nekk si biir rajo bi ne xobu dikkeem xolu xobu daqaar boo ko jëlee nga déglu rajo ko encentré wu bu mbër ñëwee ngay ñëw yor say wax di wax attention de mbër yàllaa koy wàcc yàlla mooy ngémbal boppam mbër gis nga Balla Gaye mii du benn sëriñ bu mu ne kii yaa baayam maa ànd ak baayam ba Kaolack ak Manga Mbaye Gueye Birahim Ndiaye ñu ngi may ñu ngi may dégg ñu jël fay ñu tudd ko làmb maa nga tëgg làmb ba ñu paree maa nga yëkkati xaalis jox leen ñu egg dubale dubales ne ma joxal dégul xaalis bi ma ne ko waaye bara man lu may laal xaalis mu ne ma yaa seddale séddale si gën a tuuti yaa koy séddale ma jël xaalis bi la ma waroon am man man seen barke rek laa am na ñaan boo booy ñaa judoogul ma jël xaalis bi calculer ko xool ku nekk war na am temps te te am na benn cent mille bu ci topp ma tas ko seen biir jël la sa a tuuti Mbaye Gueye comme intéressant la mu toog ba si yàgg muy jëm ba du bales na ma Balla Gaye dee bëri man damay continuer Casamance waaw boobu kan moo xamoon Balla Gaye li may dégg li may wax ay mag a ma ngi koy dégg ay ñëpp a ngi koy dégg baala nga koy dégg conseil si moom barki Cheikh Nassar Sarr bu Balla Gaye bu alul benn sëriñ bu demee tim bàmmeelu bàmmeelu bàmmeelu du ba les wax li muy wax la mu bëggoon ci ginnaaw mu def ko barki sëñ Tuubaa fu mu ñëwaat day jëlaat roi des arènes waxuma sama doom de parce que bala ngaa yéene sa doom jàmbur dara da nga koy yéene doomu jàmbur te baayam dafa sonnoon ci man béy gi dafa sonnoon ci man Mbaye Guèye maa moom la ànd Thiès maa moo doon tëdd benn lool bi ma nekk face ak Boy Niang man maa nungu si loxo Boy Niang waaw face ak may dégg loolu mooy dëgg nit day am kilifa Papa Diop dernier sama dernier appel Papa Diop laa defal dernier action bu la neexee boo jógee léegi jaar ak këram nga ne ko billahi loolu laa la ñaan ngeen def ko direct mu wax leen mu ne leen fii la déggoo ah samedi si guddi astafurlah ajuma si guddi minuit kër papa Diop la ma fekk ñu def dernière séance mu ne ma loolu liggéey ma ne ko lii laa liggéey mu ne ma loolu nag li ma leen si mortali mooy lii ak lii lii ma def ma ne ko xaaral def vocal boo ñaar di dégg boo leen demee nii bu leen waxul loolu yàlla gën a tëddal ma ma ne ko waxal booy ñaa dégg mu pare ba ñëw si boo ñaa ne gis nga dama la waxoon lii la Papa Diop wax ndi dem kilifa ndi dem kilifa boo leen jógee léegi dimbali leen ma ngir yàlla kër Papa Diop a ngi nii soriwul ngeen jaar fa rek même boo tegul tey ngeen jaar fa jël enregistrement am xam lu wax ne ko kañ la fi tegul mujj ngeen def seen teg man dama am kilifa te kenn boo yoroon cinquante milliards munoo fexe ba papa jóob booy juuf Idda Fall papa Fall timbali du leen jiite sama lépp ku amul kilifa nag sa jënd nekk sa kilifa. père ñi ñuy kontaan ci yow bu baax. li ma leen ñaan. si kattanu yàlla yont bi ak seen liggéey bi yàlla ngeen si avancé. jaar boo wàcc jógee fii jaar kër papa. Euh, mbokk yi suñu papa lañ doon waxtaanal. déggoon wax dama seen dernière séance. kon mi ngi noonu euh, Père de moom lañ doon waxtaan ñu koy gërëm bu baax a baax euh, ci disponibilité bi di jëfal famille bi yëpp ah di masawu encore ñaari mbër yi di masawu mère Anna ñoom ñëpp les supporters les fan club fu waay nekk rek euh, waxtaanu dëgg tey moo ñëw mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah Seydina merci beaucoup Seydina ak itamit El Malick Seck ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi jaajëfal ñëpp mbokk yi seeraan ngeen loolu ah, léegi. ah Seydina Lo waxal rek waxal rek voilà ñu ngi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen internautes yi gis nañ question bi mat nañu ay junni et quelques yu ñu doon seetaan neuf mille